jërëjëf mbokk yi ak allo Sénégal fii nga xam ni moom mooy Dakar la capitale Thiès dëkk ñaari gaar ak ñu ànd ceeg les techniciens Moussa et ki nga xam ni moom mooy euh, euh, Mañaan euh, wax dëgg yàlla di ay xale yoo xam ni xale yu sawar lañ am pas-pas lool jàngi technologie ñëw tasaare ko fas yéene ci dimbale doomu adama yi di bokk tamit di ci former walla ay nit yoo xam ni bëgg nañu def ci wàllu image ñu leen di former fi nga xam ni moom mooy allo Sénégal alors mbokk yi comme liñ leen koy waxee dañuy santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi di gërëm suñu waajur may gërëm suma wasila Serigne Babacar si di gërëm it ki ngeen xam ni moom lañ jàkkaar lool muy jigéenu Serigne Fallou Mbacké muy soxna ajaratu Fama Sène je pense que ñu bëri sax war nañu xàmmee kanamam par rapport ak ci jamono yu Coupe d'Afrique bi début Coupe du monde bi mais Coupe d'Afrique bi nag bokkoon na ci koo xam ni doon na def ay révélation euh, fi ñu naan seen buzz ak yeneen télévision yu mag yi mu doon fa def ay sarax yoo xam ni da doon am solo lool ci Coupe d'Afrique ba yàlla indi ko ci ndogalu yàlla nag waaye nag li ñu ci jaaxal mooy génnam dafa bariwul génnam bariwul fenn te résultat yi muy wane dafa bari li muy wax muy am dafa bari li muy joxe ay tegtal sax xale yi di ko def ci diwaan bi mu nekkee côté stade amitié dafa bari tegtal yi muy joxe kaba dafay am xombal borom juróom-ñetti guy yi dina ñëw sax ci révélation juróom-ñetti guy yi maanaam ci ñi nga xam ni tey ñu ngi dugg ci wàllum ñaan te alors que amuñu base ñu ñaan booy politique da am base moom dafa am base mooy kaba fa la guy ya ne muy ajaratu faama seen ñu fas yéene waxtaan moom ci ñaari mbir mooy wàllu actualité actualité people moom mooy Pawlish mbay ak papaam wala lay fay ak papaam parce que Pawlish Ablaye fay la tudd malgré que coow la jeex na papaam génnoon na wax est-ce que ñu seeti woon papaam waroon nañoo dem ci moment boobu moment bi takk bi amee ñooñu am nañ ci part de responsabilité ajaratu faama dina ci joxe ay révélation euh, Pawlish it lan mooy taxawaayam diggante doom ak waajur yaayam it lan mooy taxawaayam diggante ki nga xam ne moom la ko a séqal bañ am ci doom pour la lépp rafet waaye nag lu ci waaye doon doxit na den jàmm ndax Pawlish seeti na papaam nekk nañ ci jàmm ak salaam te benn média topp ko di gërëm it wax dëgg yàlla moom it am na ci responsabilité ndax xale boobu biisu nekk 2STV moom it wax dëgg yàlla nit ku baax la di def confrontation yàlla dogal ni moom moo yor Pawlish dox ci tànk yu taxaw di taxawu booy bi ak Wally Ballago Seck sa doom moom mi taxaw na ko dinaa jëndal sa papa sax nga jox ko oto donc ajaratu faama dañ lay bàyyi nga nuyoo ñiy seetaan ci Allô Sénégal ñu fas yéene ñëw nag ci wàllu xam-xam bi d'abord ñëw ci actualité parce que nag li tax ñu seet si la foog nit ñi xam kan mooy ajaratu faama seen jërëjëf ñu bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum. aleykum salaam. di sant yàlla rek nag di sant sama ñaari waajur. Mhm. sant sama wasila sëñ Fallou. ndeysaan li nga xam ne mooy sama lu nekk nekk mooy sama lépp. ndeysaan lépp. Fall lépp lu may dugg sëñ Fall lu may def sañ Fall lu may wax sëñ Fall di ñaanal Sénégal nag mm-hmm. yal na fi jàmm wàcc mm-hmm. atum ren mi yal na neex mm. yal na nu yàlla dëddul leen loo xam ne lépp luy naqar suñu njaboot ak suñu bopp yal na nu ko yàlla barka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan jërëjëf ak baax ci lu yàggul dara pert nga sa rakk bu góor e, mu génn àddina mm-hmm. yàlla dogaloon mu nekkoon fii ak soxnaam <laughs> waaw eh, yàlla dogal mu nekkoon ak soxnaam donc. lan nga koy jaalee waaw. nga may jaale sama rakk bu góor boobu fii la nekkoon ak eh, soxnaam ci kër gi maa moom fi la ñu nekkoon boo ma fekkee fii du may lekk dama yàlla ma bind nitu yaram ñuy waxat di sama rakk bu jigéen ci topp ci man biñ ne julli gi des na ñetti fan la dem man fi ne nii li ñuy wax. sàmba nuñ ko waxeeti sax. Ah. samba wiitaat. Uh-huh. mooy man. waaye ma wéttalu ko yàlla ma mm, wéttalu ko yàlla bu baax mhm. santaat suñu borom nag te xam na yëpp ay mbiram la mhm. ndeysaan jërëjëf donc xel wi sax xëy na tooy ci sama côté parce que mhm. ku ñu xam la ci Allô Sénégal mu nekkoon nit ku baax waaye yàlla mooy dogal rek euh, ki mbiram alors euh, nag wax dëgg yàlla euh, bala ñuy ñëw sax ci sorti présent parce que mënuñu ñëw rek dugg ci yow ci wàllu génn bi présent génn ni bokkatul mais ajaratu faama lu ñuy am lecture bi ñu njëkk a seetlu ci yow mooy li ngay wax muy am ci suuf dafa bari dañ koy fësal tey pour ñëpp xam ko li ngay joxe ci tekkalu sarax muy am dafa bari ñun aloo Sénégal ñi la xam dañuy ñëw sa kër ci lu bari di la gis ngay génn ay saraxu laax ay saraxu xar di ngeen gis image yi ay saraxul yëpp mooy image yooyu ngeen di gis. lu bari mu di ko génne muy am nga di ko def ci suuf te bu média ñëwee nga lànk. xëy na lii avant ñu koy am ci yow sonn nañ lool te dootuñ la bàyyi nag donc Coupe d'Afrique bi nga doon ci génn ay sarax Lions te fësul. bii booy di compétir parce que wàllu sport am na loo ci xam wax dëgg yàlla mun naa wax ni tey Allô Sénégal jackpot bi la ñu gañe tey parce que jafe na nañ la wër sa génn bariwul mhm. alors lu waral ngay faral di lëlu soit taalibe yi la wala sarax yi ñu la fekk nga di ko def la wala lan mooy problème bi ba saa yu te li ngay wax muy am dafa bari waa loolu Ameth dinaa la ci tontu bu baax sawar naa ci loolu sama maam moo ñu ko bàyyee maay borom juróom-ñetti du ma it sama xam wane mm-hmm. wu ma it sama man-man ndaxte Sénégal dafa xaw a doy waar ba fi wanee sa man-man baa nga ne nii laa mel ñu ne xamul dara mais yàlla bu la ko mayee may la gis-gis bi toogal nga jàpp sa jaamu liggéey sa liggéey mm-hmm. ku la woo nga dimbali ko mm-hmm. ku la woo nga defal ko macha allah sama client yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn mosuma cee woo fii dama mère faama nangam ndeysaan ku ma ci jëflanteel danga may woo santaat ma bu baax sant loolu nag ki yàlla suñu borom mbir <coughs> mbir yàlla du man Mm-hmm. yëpp mbir yàlla. Mm-hmm. mais comme ni ñu ko waxee euh, comme euh, da ngay faral di euh, ñàkk bañ a génn lu bari. Mm-hmm. wax nga léegi ne maa ngi gërëm sama client yi nekk bitim réew ñu ci bëri da nga leen di liggéeyal. parce que souvent dañ lay gis ngay concentré wu ci ñoom di liggéey nga ne jëflanteeg ñoom moo ëpp solo ko génn bi parce que génn bu bari bi day fekk nga am jot. te wax dëgg yàlla ku la xool xam ne amuloo jot baka sarax yi ngay def bari na ñaan yi ngay def bari na cangat yi ngay defar di ko yónnee bari na souvent yaa ngi seen i affaire rawatina dinañ ñëw ci problème mu laax yi ndax jigéen ñi nga xam ne mënuñoo jël ëmb yaa ngi leen di jox ay laax dinañ ci ñëw mais soxla yi dafa mel ni moo lay tënk ba nga xam ni dalay jàpp ba nga xam ni yow génn bi doo ko nangu accepté waaw man dadi xam nga mënew ma wax ndeysaan man li may def maa ngi koy def ci suñu mooy jëf fi ma sama yaay bàyyi ma wét naa fi nag trop mais sës naa ci yàlla suñu borom mhm. li may liggéey mhm. te li may liggéey gam naa ko. Mhm. li may liggéey gam naa ko donn naa ko ci sama yaay donn naa ko ki sama nijaay sama maam donn naa ko ci. Mhm. te ma xam naa li ma man li may def xam naa ne man ak yàlla ak bi li may def xam naa ko. Mhm. du ma def mukk mbaa nit ñëw ma di ko defal loo xam ne lii mënuma ko lu ma mën laay def lu ma mën duma ko def. Oh. ma mën laay def lu mën duma ko def. nit damay woo fii jox ma xaas yax taal defal ma nangam ak nangam ma ne ko loolu mënuma ko li ma mën nag laay def. Oh. te li ci ëpp mooy. looloo lay tënk. Mhm. ba doo mën di génn lu bari. déedéet buggoo ko sax. soo ma wooyee liggéey loo ma ma xoolal la fii li ma la war a xoolal génneel la say sarax génneel li ma la war a defal fajar laa jóg sama waa kër keroog dañ maa yërëm fajar laa jóg dem jëndi samay sarax ñëw fii di defar ma leen ci dugal sax man maay defaral sama bopp ba mu yegg film yëpp yónnee boromam parce que jamono bi léegi dafa wóorut. d'accord mais dañu gis nii danga fonk sarax. jamonoy coupe d'Afrique bi ba jamono suñu jonn yàlla tey ji xale yi foowee ci mbedd mi sax dañ lay gis tout temps ngay woo xale yi génn ay sarax di joxe rek di joxe rek souvent ngay génn ay yeewu suba teel yeewu fajar di joxe loolu eh, tax nga fonk sarax bëgg naa ñu waxtaan quoi lan lan mooy problème bi amet sarax moo baax ci doomu aadama te damaa jaboot nangu may jël àllu jaam di ko lekk te saraxewu ma oh. damaa jaboot ku jaboot dangaa war liggéey liggéey bu sell dangaa am ay doom am njaboot mun la joxe àll alalu jàmbur nga xool ko gis ko ca saraxe ko. te nee nga rab daa mën a dund. te leneen li ci gis des maay dem ca garab ya ñu xam ne li mooy liggéey loolu laay liggéeyee man. danga fonk sarax. damaa fonk sarax. sarax moom dama ko fonk moom. te ñu ci bari boo leen ko defalee. daar daar dañuy gis résultat. balaa maa eggal di nga ma xëyee da nga ma naan meer la ma doon wax am naa ci bunt. Oh. am naa ci dafa am solo. waaw ah, mais ci kaw nga xam sarax wi ci kaw nga xam sarax bi nag nga seet ko ba càmbar ko xool ko fii pitaaw yi lu mu la wax amet faye ko bor yii nii pitaaw yi rab la ñaari tuura ko séq lu mu la wax faye ko bor pitaaw yi man dama ko ragal léegi laa koy wax sama doon ñu ma ne ko pitaaw yi dama ko ragal non seet moom euh, ndax lu mu la génneel rek da nga ko gis li tax ma ni Allô Sénégal yéenay jackpot mun naa wax ni seet moom ci àdduna bi laa wax waxuma Sénégal de mhm. en Afrique Europe yaa ci mën danañ ci ñëw parce que di nga leeralal secret yi ngay génne ci seet léegi lan mooy juróom-ñetti guy yi parce que nag wax dëgg yàlla dañ la gis lu ci bëri ngay jël ay soow yu bëri ci Allô Sénégal information xam naa da nga ñu laaj fan ngeen jëlee information bi. Mhm. di dem Kaba. di wër guy yi dégg naa di fa génn mos nga fa ànd ak ab caméraman ñu gàddu ko loos wa parce que dafa bañoon a lekk. kon mu mel ni rab dafa am. donc mais balaa loolu lan mooy indi Kaba Kaba ca géej ca guy ga juróom-ñetti guy lan la. Kaba sama dëkku yaay la. juróom sama dëkku baay. voilà de moom di juróom-ñetti guy dalaa demoon ba ma àndee moom dama ko ne jëlal ci kii lii ma defar nii ñu nga lekk gisal béy bi sax génn na béy bu rafet béy bu bees sax mu ne ko béy bi sax génn na di lekk maa la kaay ma defaral la nga lekk nga ne ma lekku ma ba mu ñëwee fii loos sax man man la sotta bi nga ci ko loos bi daa wane ginnaaw mu ñëwaat fii ci man dama meer daman boobu ba tey sama loos bi dafa wane ginnaaw ma ne ko dama ne la woon nga laal ci affaire nga bañ la mais juróom-ñetti guy lu koy indi lan mooy juróom-ñetti guy rab la wala sa membre sama kii maam la lan ngeen fay faral di def ay tuur ay rab problème yu rab yi ñu fa am problème ñu waxtaan quoi waaw juróom-ñetti guy yi sama ñoom maama ko fa defoon soo fekkee ne bi jaaxle nga boo demee sangutu tuur say bagage def sa soow def sa lépp def say guro su la yàlla jàppalee danay daal di jubalee moom ndax su ndaxte ñun suñu maam dañoo la dañoo lewet kon rab ça existe lu am la dañoo lewet ak a am rab am laaj ko ki ma mu làq ne du laal ci tuuri mu ñëwee fi loosam daa lemu ak am ñu koy foyee te yoruñu loolu kon lan lan mooy problème lan lan la leen mën a juróol ñu koy foyee laa yoru ndax lii boo gisee man du may génn ñu koy foyee bari nga xale bu ndaw toog di di seet da gis koo xam ne kii la muy wax doo ci xam dara man léeg ma seetaan fi direct yoo xam ne damay mujj toog fii di reetaan ah. la ilaha illallah nga xam ne ay nga xam ne xamul dara caaxaan rek la ñuy def di caaxaan rek di caaxaan kon man mag laa te mën naa ko macha allah yàlla jagleel na ma ko fii laa toog maa ngi liggéey li ma bëgg a liggéey macha allah nga gis nit muy wax mu leer na li muy wax nii ay kàcc la ni ay kàcc rek wallaahi ma seetaane fii direct damay reetaan Ahmed dama la la ba ma commencé te li ba ma feeñoo booba sama booba maa ngi dugg ci sëy di boot sama man sama taaw léegi bu ñaan la dañ naan juruma ko jaboot na macha allah fukki at ak ñeent ku ko commencé di ko liggéey lii di xale di ko nëbb ba man ko nga jëlaat sa tuuri yaay génn ki say pettaaw ko liggéey du caaxaan. d'accord léegi bala ñuy sori ci xam-xam bi gis nga wax nga ko ne yaa ngi gis xale yi commencé di génn. doo toog ba ci Allô Sénégal gi am na ci ñoo xam ne yaa ngi leen di gis ñu ngi génn te ñi ay xale lañu. Ah. lan nga leen di conseiller parce que nag. rap mbirum rap ngeen yor yor wàllu affaire u rap xam problème yi mu leen doon indil da leen daan wuy si sax ngeen doon bañ. <laughs> ñooñu tey yow en tant que yaay di seen waajur lan nga leen mën a conseiller ci ci ci ñu moytu bala mu leen jural musiba. ah comme que ñoom ay xale la seen waajur ñu ngi jàkkaarloog ñoom ndax xaalis bi neex na rek. est-ce que hmm? am na xaalis sax. ndaxte lii liggéey bi amul xaalis ñun ñi nga xam ne ñoo ko ma def ñoo ci mën a toog mais ñooñ ay xale yu ndaw lañ nañ liggéeyi nañ liggéeyi man de heure bii. te yow mi toog sax li ngay dimbali nit moo ëpp sax yow. li ngay def di fekkante ji mënuma pétaay yi du ma ci dugg. wallaahi damay liggéey damay defi leneen man leneen laay defi damay tëdd fii ki sama lal bi sax taxaw tey ji dama lem dugal leen ci biir ñu wan ma loo xam ne damay damay waaru. bari na. wan ma loo xam ne damay waaro ba damay jógaat tekki leen tegaat leen. la ilaha illallah sama rakk ci ji bi muy gaañu fii damaa tek damaa tekk pitaaw yi nag dootuma tëneeti ndax jour bi muy dem ci ngoon gi saa yu ma sànnee rek mon ma ko. laa ilaha illallah. saa yu ma sànnee mon ma ko te bokk dañ fi añ ba suur saa yu ma sonnee rek góor gi dégg ma a ah man dama lii rek sama xarit bi moo fi ñëw ma di ko tànn ko bàyyi naa pitaaw yi lem yëpp teg. d'accord mu gaañoo ci gi ma ne pitaaw dootuma ko laalati. ok léegi loolu moom moo jur. ci biir seet gi la ñuy dese ne ñëw ci njariñu sarax ñëw ci xam-xam bi tëj actualité. léegi ci biir seet googu moo jur tey ngay gis koo xam ne yow leer na la yaa nga koy xoolal est-ce que war nga gis lu garaaw wax ko ko ba tax bu demee mu des ci boppam par rapport ak tey ñiy seet est-ce que war nga seetal nit wala mère femme di nga xoolal nit ba gis moom loo xam ne leer na la lii mën naa taal kër ga wala mun na des si boppam wala nga wax ko feebar boo xam ni gis nga ko ci moom boo xam ni tey soo ko waxoon tey da koy sonal taala ko bu doon hôpital la dañ koy nëpp nëppal ko ko wala da ngay ñëw directement wax ko li ko man dama ko wax li ko dal ba pare wax ko li koy saafara man man sama ceet moom loolu nëbb dara lu la ci wax rek faye ko ba ak lu mën a xew ci yow ak lu mën a xew ci yow la koy wax la ilaha illallah dama la koy moo xam mu feebar ma ci pitaaw yi la koy wax. moo xam mu feebar. ndax nit kii su jegee ba ñëw ndax soxlaa wax ko am nit ki dëkk ak dëkk dugal wax ko li am. yëkkatil ma micro yaa ngi wax lu am solo. waaw nit bu la wooyee dëkk ak dëkk. dugal la xaalisam wax ko li am bu ko ci nëbbu dara waaw ndax ëllëg bu ko bu loola amee dina ne maire bi da waxoon na ma lii. mais est-ce que wax bi bu dee dañoo sàcc daraam ci kër ga. wala mu joteeg wu jëm wala nangam. diw de sa wujju moo ko def wala sa wujju peese wala sa rakk moo la est ce que ko def yow. sa wujju waaw ñu sàcc ko wala dara est ce di nga def doo ko def. a ah, mën nga dem ci kër kër gay toj man toj naa fi ay kër sama doon na bul seeta ci loolu. laa ilaaha illallah mën a seet. man seet naa fii ñoo xam ne ñi dañ doon génte uh-huh. xale bu jigéen ba ramassé ñetti portable am yóbbu ko jox ko faram. nga ni maa ko feeñal fii fii ci Grand Médine wooteel. maa ko feeñal fii ci Grand Médine kon daal yow da nga koy wax li xew ba pare jox ko ay tegtal. dama koy wax li xew ba pare jox ay tegtal. ok d'accord léegi problème yi nit ñi di am di ngay génn sarax yi pour ñu tënk rek parce que li ne ci yow dafa bari problème yi nit ñi di am nga leen di génnaloo ay sarax muy faju dafa bari te du feeñ ci télé parce que doo ko nangu ñun ñu tax ñu ñëwaat maanaam ñi ngay lijjantil ay sarax seen moo xam kayit moo xam feebar moo xam ngelaw wala seytaane wala ku bëgg a dem te mënoo dem ah et euh, euh, loolu yëpp di xew. nga leen di génnloo ay sarax sa secret sarax yi lan moo la koy déyee ci seet gi la wala juróom-ñetti guy la parce dafa baax parce que gis koo xam ni mun noo sarax nga toog ba ajak-jak doo gis dara mais saraxu saraxu ajaratu faama seen doo toog ñett fan wala juróom-ñaari fan wala le jour ji te gisoo résultat waaw juróom-ñetti guy yi kay jeexal ko sànnee nga tudd turu nit ka lu nekk ci moom dina génn tay saraxam bu génnee da nga ko ko war a wax mu def ko ndax la mu bëgg daal di gaaw ñëw bu dee kayit la mu génn bu dee place la kii bu dee dal la faa déqatee ma wax la li nga xam ne moom nga war a def sa place ñu yàqal la ah. te loolu mooy wane secret sarax yi mooy feeñal diw lii problème bii la am sarax nangam ak nangam mooy problème am. Mm-hmm. ah loolu am man nit ñëw ne fii ci man di liggéey transmission oto yii la ay doomi baayam sot ko ba oto bu mu wàcce. Mm-hmm. oto bu mu wàcce oto bu du dem. oto bu mu wàcce oto bu dem mu ñëw fii ci man. ma ne ko oto dañ koy sangat oto comme nit la. waaye ñun dañuy jël nag oto rek di daw di dem rek di daw di dem rek oto dañ koy sangat mais boo ko defee leen ay otoom jar na de macha allah mi ngi jaay mi ngi dem ak dikk te laalaat ci moom du baax mi ngi dem ak a dikk de. d' accord léegi ñu romb point boobu euh, lan mooy euh, maanaam ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu euh, borom laax yi sunguf bi ajaratu faama seen borom laax yi parce que nag laax yi ngay def jigéen ñu bëri taxaw nañu. te am na am na point yoo doon am solo ñi taxaw ñoo am jël ëmb lan moo koy indi rab la ah, wala mooy la ndeta nee nga kuy toog beneen lal bu du sa lalu jëkkër man ajaratu faama yëpp ay waxam la de mënuma malaa faj lan mooy problème mu laax bi laax bi mhm. wax naa la ko fi waxati la ko fi mhm. bu fekkee da ngaa taxaw mhm. boo ñëwee ma seetal la su dee rab la dama la koy wax su dee tamit danga ngaa xaw a doy waar moo moo sa bopp dama la koy wax. ah. dama la koy wax boo réglé ki sa jëkkër yàlla dina la may bant. te laax bi ñu bari faj nga leen ci ñu jël. laax ñu bëri ñu bëri faj naa leen ñu bëri. laax bi ñu bari faj naa leen ci. mais bala nga koo faj. Ah. bala nga koo jox naan ko laaxal da nga koy xool ba pare. ma ko xoolee ba pare. waaw wax la li ci nekk lépp. su dee sa bii dafa daxaw dama la koy jox waaw. waaye nag soo ko commencé danga nga yem ki sa jëkkër. la ilaha illallah. nga yem ki sa jëkkër. nekk ci lu la neex di ko nëbb yaakaar ne mën nga am li nga bëgg musiba la de doom moom mënu ko am moom ndax ndox ay ndox dama ko yàlla jéggal sax ci waxin bi sax waruma ko wax mag laa mais affaire yi jaxasoo moom mënta taxawal doom d'accord doom kenn koy jur bari ngay turandoo de mm-hmm. doom kenn rek a koy jur d'accord ok beneen point bi mooy ku góor ki dëgg naa am na ay infection yooyu faral di dindi ci ñoom. Mhm. su dee seen naq yi dafa infecté euh, jëkkëru ndaw si parce que nee nga booy faj ñoom ñaar ñëpp ngay faj. ñoom ñaar ñëpp lay faj mooy faj ñoom ñaar ñëpp lay faj. Mhm. ndax jigéen dina faju ba yeggal jëkkëram tamit am maladie foog dañ koy defal moom tamit faj ko ah. def ngay dem hôpital ñu defal lay analyse defal lay yëpp mais bu dul feebaru hôpital du ko dindi léegi sa biir dafa raxasu ba set. suñuy góor la li ki naqam dafa raxasu ba set te di tam set wecc yokk ndox mi waaw d'accord ok li muy am ci ay turandoo bari na donc loolu domaine am la muy ci wàllu jigéen ñi taxaw ci wàllu laax mhm. alors ñu koy joxe numéro bi nag mu ngi affiché ci bas d'écran bi su ngeen wooyee di ko jot moom directement wala ngeen jot rakkam mu orienté leen ci mère Fama incha allahu taala wala ngeen jot entretien Fama seen directement alors eh, beneen bi ci topp euh, mooy dañuy ñëw nag ci actualité nag parce que nag xam-xam bi ne ci yow dafa bari képp mhm. yi ngay na macha allah et puis Amath saraxa tere am dara. may saraxa rek. ndeysaan <laughs> saraxa ma tere am dara. may saraxa rek. ak ko fonk mooy sama sawatage. xaaj bi ak étage du dara. saraxa bi mooy sama sawatage mooy sama sawatage samay client moom laay def am na ay bagages yu ngóoro am solo dinañ ko publicité dinañ leen ko wax euh, ay pommade la ak ay produit pour ajaratu faama ñi ko soxla incha allah ci wàllu yoon wàllu kaso ak ay jaaro am-am jaaro boo xam ni foqet la mais euh, jaaro yooyu di nga ci ñëw prochaine émission ndax tey dañ doon seet si pour waxtaan yow rek ci actualité mhm. képp ku la soxla ci wàllu seet gi ak kayit yi ak am problème mhm. biir euh, dinañ ci ñëw parce que jigéen ñu bëri aay nga ci loolu yëpp sa domaine la macha allah jigéen ñu bëri ñi ngi am problème ak seen i jëkkër yi seen sëy yi mënta régler alors que nekk lii liggéey la lu mel lu ci bëri rab da def ñu naan da ngeen a rab da koy def de wax naa leen ko fii de danaa leen bàyyi leen lu leen dal rek ngeen a liggéey la wala ngeen song ki ngeen nekkal te xooloo sa bopp rab da koy def rab da koy def nga tëdd ba bët set sa dëkk du la xool doo ko xool doo bëgg sax tëdd ak moom waaw rab da koy def yooyu yëpp dinañ ci ñëw actualité bi xew mooy lan ngay saluer président de la République Macky Sall def na nee na bokkatul te dina organiser élection yi mu jaar yoon moom mooy seul président boo xam ni amuloon Abdou Diouf defu ko euh, ku ci nekk da ngaa forcé toog ba mu neex la nga indi mais ab Macky Sall nee na ñaari mandat yi ci yem du ma bokkaat réew mi doon tàkk lu ne xew na fi mais tere def na tekk après mu génn na bokkul dëkk bi ñëpp a ko lan nga ci wax xanaa di ko ñaanal rek nag Sall ngaa li tooroo de ndax ta xam na liggéey na fi nag ndeysaan liggéey na fi de mhm. liggéey na fi nag wax dëgg yàlla liggéey na fi te mu defit rafet na parce que boo nekkee cim réew jiite da ngay am yërmande kañ la nga jiite. ndeysaan. te dafa dem ba xam ne man mi am naa yërmande ki sama jiite sama ñi ma jiite léegi naa wane naa dellu ginnaaw taxawaat jàkkaarloog peuple bi. ndeysaan maye jàmm maye salaam ba mu ko defee ba tey ñëpp a ngi lekk ngi naan ñëpp seen xol yi sedd na guy dañ koy ñaanal ñal na ko yàlla defal ndam ci lii mu def. ñëpp ko rafetlu. ñëpp a ko rafetlu. d'accord léegi ci kaw loolu nee na day organiser mais organiser da nga boo sañoon yow ñëppay bokk. man nag su ma sañoon day bàyyi ñëpp bokk ñëpp war a bokk ndax kenn xamul fan la kenn xamul fan la na bàyyi ñëpp bokk ndax Sonko xale bu yaru la. Mhm. amul problème te am na diine. man naa yor réew mi de. Mhm. man naa yor réew mi. Mhm. ama doom jooju man naa yor réew mi de. ndaxte gis nga nit boo ko joxum réew bu ko jox ko tiniyaa bu ko jox ko naafiq mhm. jox ko ku sell ku set ku mën a yorum réew mhm. mais gis nañ ni euh, ci jamonoy tabaski bi Cheikh Saliou joxoon na ko xar xar mi am na wax yi ñu ci doon wax ñu naan mystique laag ñi naan sarax laak ñi naan nangam yow ba ban jàngat nga ci am ci sarax xar moom mu jël rek teg ci ginnaaw lancer message am na ñu naan mystique laag day fay coow ak yu kenn xamul est-ce que lu xar dina fay coow ay waay moo tax Sénégal du ñu avancé ñun suñu fii mhm. du ñu avancé ñaaw nañu njort ñaaw nañu teraanga ju ñëw la rek taraanga ju ñëw daal nga ko jàppee yow billaahi teraanga la war na yàlla teraanga la man su doon miski dinaa ci wax est-ce xar dina fay coow taraanga la xar du fay mooy fay coow barki rasulullaay béy mooy fay coow la rek teraanga la ko indil rek na leen ko def teraanga rek d'accord ok euh, libéré nañ Cheikh Bara Ndiaye bàyyi nañ ko démb defar ko libéré parce feebaroon ban message nga ciy wax li ñu mel ni ñu koy moytu bàyyi nañ ko nag Cheikh Bara Ndiaye mel ni bi naan défendre Sonko tëj nañ ko mais dafa feebaroon ñu libéré ko mais liberté provisoire Bara Ndiaye ak ma naqari woon ndaxte Cheikh Bara dafa jaboot ba noppi te boole koog dafa baax responsabilité la di def lu baax ki doomu aadama yi fa mu dëkk yore njabootam waaw nag yu bari soo nekkee jaboot da ngay moytu wax yu bari. dëgg la wax yu bari da nga koy moytu parce que jaboot nga. dëgg la waaw ndax am na fu mu toll du la neex. ah am na foo xam ne fi bu fa yeggee du la neex. yàlla na ko yàlla defal wér ak wérle ak mbooloom jullit ñëpp fekk moom daal laa koy ñaanal Cheikh Bara Ndiaye. d'accord ëllëgu Ousmane Sonko loo ci gis parce que ñi ngi taxaw nii dañ ko bëgg a def investiture pour def méga te ak li fi ci réew mi tolloon Macky Sall na bokkatul léegi ñu bëgg def seen méga meeting alors lan nga ciy wax par rapport ak lii ñu ne ñoom dañ ko bëgg def la quinze pour wane ni usman Sonko mooy seen candidat baadu ju fi juraat leneen neen ah, moom de xam naa bu dee juraal leneen tamit Macky daal moom futteeku na moom summeeku na ba set moom moom moom jaana wàcc na ku fu indiwaat problème yaa ko fi indi sa bopp dëgg yàlla. ku uh-huh. war da laa war a dañ laa war bàyyi nga bokk. mais façon bi ñu koy defee façon bi ñu ko defee. mais Macky moom wax dëgg yàlla ke ko waratu ko wax leen moom dindeeku na boppam ba set wecc. mais bu préfet waxee ni autorisé wul. est-ce a war nañu forcer pour def ko la 15 bala mu fay jur leneen. ah bu ñu forcer parce que ñun ñëpp ku ci nekk sa intérêt ngay xool. parce que am na ñu ne sax est-ce que nekkul dañuy Sonko pour utiliser mboolam ndax ñu ko wër ñëpp amuñu pepp nit. ah waaw loolu ba tey ci seen biir la rek. nga Ousmane Sonko. Hmm. bu ñu ko bàyyee mu toog dana danañu kontaan de man damaa bu baax sax Ousmane Sonko bu ko bàyyee mu toog danañu kontaan Macky Sall nag bu ñàkk a bàyyi Ousmane Sonko mu toog du gàllaajam ndax ñi nekk ci ginnaaw kàmb lañ koy gasal te yëgu ko maa la ko wax te Ousmane Sonko xolam rafet na. bu toogoon tey du kaam du gasal kenn kaam ku commencé def lu bon dina la jox loxo na la jërëjëf. d' accord d' euh, accord jërëjëf ñu coof ci rek léegi euh, dernière question euh, lan ngay wax ci Pape Pawlish Mbaye Ablaye Faye ak papaam parce que takk na jabar ngeen toog la lendemain gis beneen presse seeti papaam waxloo ko ba mu dugg ci musiba wax lu mu war ta wax alors parce que waru ko wax alors papam wax na diggante Pawlish Mbaye diggante nday ak doom baay ak doom ban message nga ci lancé parce que nag. est-ce que papaam waroon na waxee fii parce que xale bi takk na te fa mu takkee ay nawleem lañ muy famille bu baax waa kër Baye Laye. waaw waaw ñi ko wax loo it ban ban responsabilité lañ ci am. Pawlish Mbaye ne delluwaat ginnaaw te xam na baay baay la même bu ko faroon ca mbale sax baayam waajur du morom nden la bu dalee caw nga toj ci dal bu ko defalul bu ko defalul dara dara dara jëlal mbootu maag lépp sànni ko it waajuram la bu mu dégg wax ma Samba bu mu dégg wax ma Demba nga jàpp baayam nday ak baay du ñu morom. ñi nga xam na nag ñoo dem di ko wax loo uh-huh. ah mënoon nañoo xaar ba takk mënoon nañoo xaar ba takk gi jàll mbaa ñu xaar ba lépp jàll ñu toog waxtaan ak moom waxtaan boo xam ne bii nekk sax lay doon ñu waxtaan ñëpp dégg ci loo xam ne lii ci njureel nit ak baayam ndey ak baay dafa xat kenn waru cee dugg wallaahi kenn waru cee dugg xaalis nag na delloowaat xel na del siwaat xelam bu baax na del siwaat xelam loolu laa koy sant xale la del siwaat xelam demaat ci papaam ñu waxtaan bu baax moo ko jur moo ko jur mais papa mi loo koy wax papa fi mu génnee wax ak ni mu ko waxee. waaw fu wax xam nga rek. xam nga na papaam fi mu ne nii aas am na aas boo xam ne bii am na ñoo xam ne ñu toll ci aas tol toll nii seen xel day xaw a jaxasoo. dëgg la dañ dem taaj ko di laaj loolu la rek. dëgg la waaye doom la. dañ ko piégé ci ay questions ko piégé. oh loolu ñu ko def loo nag. mais dëgg la li nga wax ni bu bëri selluñ ko ah. waaw Pawlish na xam ne papaam li ñu ko def defloo dañ ko jaxase dañ ko jaxase rek ñu dem demaat ca papaam jébbalu ci moom bu baax dendaat ak papaam waxaat ak moom waxtaan ak moom. mais am na euh, ci gàttal am bëgguñ sax ñu sori ci ndax juboo am na sant yàlla. parce que dañ laa dégg nga ni euh, vie privée jàmbur la du ma ci wax. biñ la njëkkee seet si alors waaye. Euh, gis nañ nit yaayam wax yaayam it loo koy parce que am nga ay doom yoo jur yaayam taxawaayam lan la parce bi affaire bi amee moom it génn na wax ni Pawlish keneen moo ko yoroo nag moo tax ma jox ko sant booboo nangam moo tax en général ñuy faral di wax naan bàyyi leen jël sant jaamur yi di ko. man mi nga gis ku nekk yaakaar loo xam ne li ci biir néeg boo ko waxantee ji àddina bitas tas newoon naa fi keroog mu ñu jëlee micro yi tiimale ko ci biir kër yi dëkk bi tas ah. ñu kër yi ñoo ëpp li ñuy génn ci biir kii bi yaayam jigéen la may jigéen du ko wax dara ku mën a jaay sa bopp mbaa nga weer sa bopp kooku sa affaire la waaw et euh, wax dëgg yàlla conseil la daal boo xam ne da nga leen ko doon jox di gërëm it biisu ngoone parce que moom mooy nekk ak Pawlish taxawu ko wax dëgg yàlla ki naan dafay jaxase jël na njëkke li jox ko biisu fooy fii ku ne da nga am sa nit jox loolu ci dara ndax biisu mhm. bi jox ko njëkke li am na fu mu ko teg ah. waaye day li ah. foofu la problème bi nekk waaye alhamdulilah biisu ngoonoo moom dafa baax rek dafa baax rek lépp lu mu ci def rek ci mbaax la lépp lu mu ci def rek ci mbaax la. d'accord waaw lépp lu ci def rek ci mbaax la def Pawlish rak di ko defal nit nag soo defee la lu baax mënoo koo fay leneen lu dul taraanga taraanga la ko fay rek. ndeysaan waaw fii kay ku ne am nga jëkke deuxième njëkke boo joxe. waa man mi joxe naa deuxième njëkke. Ah, léegi problème bi mooy. Mhm. Euh, balaa ngay tàggoo papa booy jinne mi ngi doon bëree. waaye ñu ngi koy daan rek. Mhm. mais bi mu takkee ndéygéey avant muy takk ndéygéey da doon daanu de. waxuñu ne ndéygéey jigu ko. waaw ñu bàyyi ba mu takku ndéygéey parce que ndéygéey peut-être am na fu mu bokkoon. boo xam ni tey xëy na si woon na am fu bokk ànd ak Youssou xam nga doo xam ñu bëgg ak ñu bañ. Mhm. ñu ne ko te mi ngi daanu yaakaar naa bëre ak sëy na ah, lu mu mi ngi muñ de. ndéygéey mi gis na lu muñ gis na loo xam ne lii ci papa ji mu ko mu bàyyi ko mais muñ ba ko bëgg mbëgguñ te bokk di sëy nañ leen rafetal ànd bi mooy li ngay wax sànq rek te rafetal jikko yi te génn ci problème jàmbur yi nañ leen rafetal ànd bi te rafetal jikko yi mm-hmm. waaw rafetal toogaay yi léegi defu ko dara papa junne daanu bi muy daanu yàlla la mbir yàlla la rek ku war a daanu daanu li ma wax ni que rek ku war a daanu daanu ku war a toog toog ñu naan ko bàyyil nag bàyyil bëri man naam bu ko neexee bu fekkee yaramam mayu ko muy bëri su ko neexee mu toog bàyyi bàyyi ba waaye tee du ko yàq ki dara rek mën naa liggéey góor la am na doole na liggéey mais bu ndeygee tax daal mu bàyyi bëre ndeygee kay bu mu tas ndeygee na toog tamit loolu du noonu àddina ah, du noonu na tas loolu kenn du ko wax kenn du ko wax jërëjëf kenn du ko wax eh, lan ngay tàggoo lan ñaanal sa taalibe yi ak waa réew mi yëpp ma taalibe yi maa leen di ñaanal jàmm rek ñu ma seetaan mhm. ñëpp nag waa bitim réew rek ñëpp maa ngi di ñaanal mhm. ak Sénégal di ñaanal seen grand bi gi ma dëkk nga xam ne samay dëkkandoo lañu ñu baax lañu wax dëgg yàlla grand bi mënu ma leen a fay mhm. ndax man daanaka ñi ma fi nekkal ci samay morom bennat bennat la mais xale yi ndaw yi ma fi nekkal rek dañ maa bëgg bëgg bëgg mënuma leen a fay. xale yi da nga leen moo tax. léegi euh, sa doom Sadio Mané Bayern ne sax dem nañ ba naan dañ ko jaayee 20 millions d'euros te 30 lañ ko jëndee woon nee moom problème Sadio Mané yàgg naa tëj ci club bi yàgg naa ñu sax waaye bu ko neexee na fa jóge sax ñun loolu la ñu bëgg ndax da bëgg xale bi yow <laughs> lan ngay wax ci loolu. Sadio Mané bañ koo boole Sadio Mané sama doom jooju nañ ko fi bàyyi rek dañ ko bàyyi rek moo ñu fi indil moom moo ñu fi indil coupe bi moom moo moom moo fi bégal Sénégal de. bu ko keneen soxlaa na dem. ah moo bégal Sénégal keneen soxlaa na dem. waaw waaw ah moo bégal Sénégal day liggéey rek. yal na yàlla defal jàmm saawaan oo baawaan. jërëjëf championnat boobu daal ñun sax soxla wuñ ko woon nag far. booy maane Niancho jugal Bayern na nga dem feneen baax na Bayern na doy na <laughs> jërë ngeen jëf merci beaucoup.